وسل يا رحمن وسلم على النبي ورسول سلمين سيدنا محمد والآل وسلم بالآل والمآل وصل لقين بدني وروحي مكار الدارين يا مريم وصل لقين عبيد وسدا ولا توجيه دعوا وصدا waaye jumtukaay yi boo gisee ñu ciy wax parce que njaboot gi suñu njaboot lañ waaye waaye yi nga xam ne ñoo yore wér-gu-yaram gi dañ ne dañ ne xale yi nañ nañ respecté distance yi mooy mooy benn benn mètre mooy benn mètre buñ ko buñ buñ ko di ñu defee ko xam naa ne lu jafe la waaye benn benn waxtu la rek léegi mu léegi mu jeex ñu mën a continuer waat ndax tàncanteloo bi day day xaw a kii dana jafe lool nag ci daara parce que daara lañ xam waaye yàlla moo ñu mën a muccal kaamil yi ngeen fi jàng tamit yàlla lépp wis ko ci réew mi nga xam ni euh, président Macky Sall yéen yi nga xam ne am na ko mooy jàngoro daw mu daw nañ nañ ko jàppoon nii rek yàlla mën na ñëw suturaal léegi mu dem ndaxte ñii suñu njaboot lañ ñii yaakaar naa moom dañ ci góorgóor suñu lu ñu da ngeen ci jàppale rek laaj rek waaye ñun moom dañ kilifa lañ fi nekk moom lépp loo xam ne wax nañ ko rek ci wàll googu rek bu soobee dañ dañ ko defee waaw ñu leen sant ni ñu koy defee mooy di raxas suñu loxo yi suñ xëysee bu ñu wàccee bala nga ñibbi raxas ko bu ñu ko doon def noonu bu ñu wàccee bala ñu ñu defar ko soo yàlla jël jël ay kii ay distance noonu waaw yëpp dégg nañ ko moom moom xanaa sant gu baax comme ni mu ko waxee ci njëlbeen gi ñaan gu baax waaye sama borom yokk taxawaayam bu baax baax baax xam dëkk borom dëkk boobu li li moon ak ak bëgg ak bëggam Euh, sant baax tey ci samedi ji danoo xëyoon wàcc ci terrain bi euh, mu def ko nag mbay ci weyu tànkam euh, njëkkee ko ci daara yi nga xam ne ñooy ñooy nekk ci gox bi ci wàccem kaamil bi bi nu xëyee jàng nañ fa ay kaamil yu am solo ñaanal réew mi ñaanal président de la république xeex bi muy xeex ngir ñu ànd daanandoo coronavirus bi xeex boobu yëpp ñu gañe ko te jullit amul lu dul ñaan li ci des nii ñuy def muy raxasu beeg yëpp sabablu la rek waaye ñu delluwaat ci ñaan Euh, xam ne tamit sëñ bi loolu la digle ndax keroog bi ñu déggee nga xam ne mbir mi xew na ci dëkk bi xam nga Touba dafa doon lu spécial euh, dëkk yu bëri dañuy dañuy dañuy dañuy joxe ak ne na nanu fermer daara yi mais Touba dafa spécial euh, dafa am nun fiy doxe ñun ñu gis ne ñun mënuñu fermeloo nit ñi daara ñi mais honorable am na lu mu man li mu man mooy dind ci ñaxam wut ay savon wut ay savel wàcc ci daara yi fekk leen fa jox leen ko ñu ñu di ko utiliser ba nga xam ne xale yi suñu xëy dinañ raxasu bu ñu wàccee dinañ raxasu te ah, xale image day des suñu demee tamit dinañ ci insister seen parents yi pour ñu gën leen ko ñu gën koo nekk di ko insister ci biir kër gi di ko pratiquer moo tax ñu wàccoon ci sur la base. ginnaaw bi ñu xëyee tey wàccee alxuraan def ko ñaanal daara ñaanal réew mi feebar bi fi am nga xam ne feebar bu doy war la boo xam ne ñëpp ci may war a bàyyi xel ñaanal réew mi suñu borom feebar boobu yemale ko ndax ñun ko ay julli lën ñaan rek lan sañ def nag. ñaan suñu borom feebar bi mu jeexee ko kon loolu mooy activité bi nga xam ne def nañ ko après nag ñun ak ci honorable Matar jóg wàcc nañ sur le terrain dem ci daara yi nga xam ne ñoo fi nekk bàyyiwuñ benn benn daara yi nekk fii ci koñ bi fenn fu ne dem nañ fa yóbbu fa suñuy action wan leen ànd ak suñu bàjjanu gox wan leen nan la ñuy utiliser affaire yi euh, loolu daal mooy activité yi xam ne def nañ ko. ndax ku ne dégg na àdduna bi surtout Touba programme feebar ñu jëkke nag si daara yi ndax daara yi suñu ay njaboot ñoo fa nekk te en tant que bàjjanu ko ñu nekk ay yaayu njaboot xam nañ lan mooy feebar ba tax na ñu ñëwoon ci sëriñ bi mu nangul ñu ko aussi ñu won xale ni ñuy raxasoo ni ñuy toogee espace bi ñu war a def ba nga xamante ne seen yaram du war a mën a jegeyante di sóoranteeg yooyu yooyu yëpp sëriñ bi nangul nañu ko ba wan nañ leen ko ñu di ci sant yàlla bu baax kii sëqat heure bu nga xamante ne sëqat lu ko bett bett rek loxo moom jege na borom heure booy sëqat rek war nga mën def nii wala ngaa jël sa mouchoir acheté nga taf ko nii sa kanam pour tisloo yi ndaxte eh, heure boo tisloo lee rek wala nga sëqat ay microbe ay million million génn na si yow dem ci sa morom te lool day lawal joxante loxo bi surtout mooy gën a lawal feebar nañ ko moytandiku parce que microbe toujours ci loxo lay commencé parce que loxo dafa sensible moo tax nañ moytu joxe loxo képp koo xam ne mënoo ko ñàkk nitu ñun ay murit lañ ay jullit lañu itam saafonte nga xam na ko wala nga def ni sa